waaw li ñu dajale fii tey mooy euh, financement bu ñuy joxe pour jigéen yi depuis ay weer a ngi nii ñu liggéey ci mutuelle boobu di encadrer di accompagner jigéen yi pour ñu mën a ci financement yooyu yàlla mi nga xam dara teewu ko def tey loolu yëpp yemb ba ñu war fee joxe lu toll ni 48 millions war koo jox jigéen yi dette ontaire bi bëriwul euh, vraiment mutuelle la boo xamante ne euh, ni muy liggéeyee ak jigéen yi wax dëgg neex yàlla yomb na te jafewul bo setlo financement bi euh, dañ ne dañ koy rembourser ci diru at manam buñ leen ko joxe tay dañu xaar at soga ñew pour rembourser donc lolu dana permettre jigeni, ni ñu mën ku ci nek ci li ngay yëngatu euh, nga mën ci yëngatu ba boobaa nga nak rembourser te déssé touti suñu objectif nak du ci 48 millions yi dañu bëgg euh, jappalé jigen ni accompagner len parce que jot financement baxna mais nous encadrer la jappelé la ba nga mëna rentabiliser financement bi aussi lu am solo la donc nous continuer di leen accompagner di leen jappelé ba ñu mëna fay seen financement mais mais mon jëlaat benen financement parce que objectif bi que, fi ak fin 2020 nous avons 100 millions de financement Nous avons ne dañ koy la fii ci commune Ngayokhème 32 groupements de 15 femmes chacune Nous avons nekk un waaw am na nag yeneen groupement yoo xam euh, ñi dossier parce que comme nous le ko c'est une première vague mais avons une deuxième ou une troisième vague bu war euh, en tant que mouvement politique en tant que euh, doomu nous avons appelé les familles pour nous composer un dossier Jara ko fi des ko wara nous jaarale mën jot financement donc amna première vague nous avons mom lañuy la tay mais nous yenen un groupement yo, nous signaler signalé wu nañ parce que information bi xeyna niñ ko jote ko mais depuis bi yégué li yépp ñom ñoom ñi bëgg vraiment ñu jappalé leen ci mën mën a jot ci financement yooyu. activité femmes yi mbay la euh ak commerce ak euh, élevage donc ñu ngi yëngatu ci lepp lo xamné dal mëna leen permettre ñu mëna gagner dara mën ci am euh, bénéfice rembourser te dese dese dese tuuti ci xaalis. ñaax jigen ni parce que li euh lu yombul la lu jafé la xëy na ñu bari bëggon nañ ko mais yalla def na tay ñom ñoo ci jot ñu gorgolu nak ba ca fay ba ñom ñëpp ñu wara fay. moo tax ma ne ñun du ñu yem ci jàppale leen ba ñu jot ci financement bi mais dañ leen nar a accompagner nar leen fekk ci gox-goxaan yi euh, encadre leen wax ak ñoom xool ci li ñuy yëngatu lan la ah bu dee laaj na ay jubanti ñu jëm leen jàpple ñu jubanti bu fay ba bu jotee ñu mën a fay ñoom ñëpp te du am benn gàllankoor. financement yi am na yu ñu def ci suñu développement ndax yàggoon nañoo bugg a liggéey waaye amuñu woon fonds pour liggéey te boo amul fonds doo mun a liggéey. motax euh, amal nañu njëriñ lool ndax bok bu ci joté di nga mëna liggéey sa bop ante duñuy sonal ndax bo sétlo buñ la joxé ñaar fukki juni bala nga ko fay nga am fukki wër loolu bu la yalla jappalé ciono mun na am. am na ñu bëri kay ñu bëgg bok lisa ci ay ma ndax li sax daanaka dañ ko musda am ñun wa tukar daanaka jigéenu commune bu yépp ma ngi leen di soñ pour ñu bok ak ñun liggéey bi ndax ñu am japp ci dara ndax ñu mëna développer wu ndax kër kat liko mëna jëriñ moy nga yor sama rom yor waye kër bo ca nekké te mu manké xaaliss dal wax dëgg yalla kèn du mëna am li nga bëgg dal, petit commerce dañ koy def dañuy def embauche lépp luñu xalaat dal né suñ ko liggéey ci xaaliss bi dañu gënël dara dañ ko ciy def. di soñu jigéen ñi tam pour ñu ébé li xel ndax benn ciono amuñu ko ci laaju ñu dara benn intérêt ñu ko ñu góorgóorlu nak ku ci jël xaaliss bi. buñ la nee fay jot na nga góor góorlu indi sa pay bañ indi benn wér-wér loo